jërë ngeen jëf mbokki jullit yi jërë ngeen jëf mbokki taaliba yi jërë ngeen jëf amit téléspectateur people 221 ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di am mbégte ci dalalaat leen fii waaye di nuy suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi nuyoo bi nag du gudd ndax tey dañoo dalal kilifa goo xam ne Euh, jotam bariwul ki nga xam ne day wax euh, tuuti jëf lu yi mu di Serigne Abdou Mbacke moom Serigne Saliou bu ñu moom Serigne Saliou muy bokk na ci ndaw yi nga xam ne Serigne Saliou moo leen tàggat euh, ci ay loxom moom lañ fas yéene dalal fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu xam-xam waaye ci wàllu actualité sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoo ngi lay suivre. ahmasu billahi min asheytaan arrajim wa inni uhiisuha bika wa surriyataha min asheytaan arrajim rabbi ahusu bika min hamasati sayatin wa ausu bika rabbi an yahdurun bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahimi maliki yawm ddin iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ihdina siraat almustaqim siraat allazina anamta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala ddaalin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm tey ñu nuyu suma sëriñ bu baax ba sëriñ Muntaxa di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne saaliw suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal bépp xalifa généraux bu nekk fii ci réew mi ak bitim réew suñu borom yàggal leen fi lool te wéral leen bisimilah. sëñ bi fi may njëkkee mu di ñu jëm benn bés mu di dimanche di diggante combat Balla Gaye ak Boy Niang indi coow lu bari ci senegal combat boobu laa bëgg nga analyser ma ko. man nag euh, euh, sa guy gi man ñaare damaa doon ëpp sëriñ sant Mbàkke ñu xam ma ba noppi sëriñ Saaliw yar ma bu dee ci wàllum làmbu man du ma du ma wax ci làmbu waaye nag bu fekkee ne ci wàllum par man Balla Gaye laa faral li tax ma faral ko it mooy man sëñ Saaliw ma yar te moom mm-hmm. laa dégg mu tudde doom sëriñ Saaliw Balla Gaye waaw moo tax bu jàppale dee am man moom laay jàppale ci saayir moom laay jàppale ci baatin waaye nag comme di ci wax naan diwoy daan. non pas diwoy daan mais amateur nga tey yaa ngi seetaan di nga gis. xam euh, naa ne daal moom moom moom moom bu bu làmb ji jaareel yoon làmb ju neex la war a doon. ndax niru na ne ñaari bërekat lañ niru na ne ñaari bërekat lañ ndax booy ñaa mën naa bëre Balla Gaye mën naa bëre booy Niang xale la Balla Gaye guddi yi Balla Gaye yi Boy Niang toll Balla Gaye tolloon na fa guddi yi Balla Gaye toll tamit euh, Boy Niang mi ngi ñaan yàlla toll fa léegi daal li may ñaan mooy. ndam li moom Balla Gaye laa ko gën a yéene wax dëgg yàlla ndax am naa ci près de droit ndax comme man Serigne Saliou laa yaakaar. te mhm. moom laa moom laa gëm moom moo ma yar bi may doon xale ba doon doon doon mag. Mhm. ki nga xam ne si nii tey jii moo ko tuddeeg leer man duma ko yemale ku yàlla bind. d'accord waaw tey Balla Gaye euh, jël Boy yaakaaroo comme sa mbër la nekku risque ci yéen. ah déedéet yaakaaruma ko ndax Balla moom wax dëgg yàlla moom <laughs> wóolu naa ko ci fànn gépp moom. wax dëgg eh. yàlla ah, waaw naa ko moom wóolu naa ko tey surtout jamono jii. Mhm. Eh, démb bi ma ko xoolee bi ma ko seetaanee xam naa ne wax dëgg yàlla. sa xel dal na daal sama xel dal na. sa xel dal na <laughs> sama xel dal na ci waaw. ah mais mais boo ñaanee ne da koy daan ci ci une minute da koy du ma daan. loolu nag yaakaaruma ko yaakaaruma ko de loolu. yaakaaroo ko <laughs> kon yow ni nga gisee ni nga gisee ni nga gisee Balla Gaye physiquement sa xel dal na ci. waaw sama xel dal na ci te maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam defal ko ndam lu sedd guy sax wax dëgg yàlla maa koy ñaanal ndam lu sedd guy lool sax. te gaaw <laughs> amin <laughs> xam ah. ah, a uh-huh. da koo man moo tax. Uh-huh. neexut moom neexut a bañ boo boo sax doo ko tay uh-huh. ndax li muy def moom moom ko bëgg xam nga nit mbir li ngay def boo ko manee waxee rek nit ñi dañ mhm. lay bëgg mhm. li ngay li ngay def boo ko mënee te moom yàlla dafa dogal yàlla da ko da da ko man da ko dafa dogal mu man ko daal mhm. li muy def da man mais seen état de ñoom ñaar wax dëgg yàlla ñoom ñaar ñëpp ñu ci état moom ñoom ñaar ñëpp yi moom rek nit gis nga ñun même bi ñuy jàng alxuraan boo dikkoon di di di di taree noo noo jàngewut munu fexe ba doo gag bu fekkee ne da ngaa taj da ngaa taj tajwid ñëw bëgg a baral bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim mënoo mhm. fexe ba doogaan mhm. bu fekkee ne da ngaa jànge baral tamit bëgg a taree tajwid mënoo fexe ba doogaan mhm. nit moom bu ñu lay conseil yu mu mën a doon yow sa manin bu ko baax ni nga manee te xàmme ko nga xam ne yaa ko jekkoo sa yaram boo demee rek appliquer noonu waaw kon na nga gis ni ko combat yi passé li nga daan xaj mooy daa bàyyi maninam waaw xam nga conseil yu bari baaxul yenn conseil yu bari yi boo ko toppee rek baaxul waaw d' accord nag dama leen a ubbil foofu ci làmb ji ah xam nga sëñ bi des am na ñoo xam ne nag dañuy jàpp ne sëriñ si moom kurus rek la ñuy yor takk seen kaala xamuñu li xew ci dëkk bi waaw te sëñ bi day dund làmb amateur la dañuy xam dañuy xam bu baax mhm. xam nañ naan diine ak jamono mhm. waaw. Mhm. diine ak jamono. gis nga mhm. ab sëriñ dafa war a folli nopp fal bët. di mhm. xool warul di dégg rek di di di commentaire. dafa war yu baree bare da koo war di xam yoo xam si ni kenn du ko wax moo koy xamal boppam. bu boobaa boo ca commentaire rek rek da ngay wax loo xam. waaye bu fekkee ne da ngay dégg nit ñëw nettali la rek nga daal di jëfandikoo lañ la nettalee. bu boobaa mën ngaa jóg. mais tey Balla Gaye yaakaaru combat mu am ci pression comme li Boy Niang daan rakam. Ah, na foofu Balla Gaye mag mag mag la doonatut xale. doonatut xale bu ñuy bu ñuy nekk di waaw comme léegi nag wax wax waxtaanal nañ la ci li nga bëgg léegi nañ jàll ci xam-xam comme xam <laughs> ah, mu ngi noonu fi ma njëkkee hmm. mu di wàllu seet tey ñu bari dañuy seetee ilmu raml ñii di seetee ilmu nujum ñii di seetee ay ay ay ay big ñii di seetee ah, suuf ba ci ndox yow nga yor nga yor seet boo xam ni bariwul lu ma koy gis mu di wàllu rawxaan ci loxo hmm. waaw man guy gi dama damaa am damaa jàng xam-xam hmm. Euh, ramlu boobu ngay séen gisuma nit ku ma ko dàq. mu ram ram dam ramlu dama ko man lool bokk na ci bi may jàng lasaraar li ma gën a jëkk a gëstu ramlu ci la bokk. Mhm. ilmu ramlu seetu ramlu. Mhm. bunt yooyu dama ko maîtriser xam ko bu baax a baax baax. Mhm. su ma ciy seetal nit bokk na ci seet yi may seet sax waaye euh, maanaam li nga xam ne moom laa gën a mën a seet nga xam si ni yàlla dogal na bi ma ko amee ba tey seet seetatuma ci ramlu seetatuma ci dara. mooy euh, seet bu ñuy wax seetu rawxaan. seetu rawxaat bi nga xam si ni da ngay foto sa loxo ndeyjoor bii. boo foto loxo ndeyjoor bii ñett rëdd rëdd yi ci nekk laay soxla. foto foto loxo ndeyjoor bii. ak foo mën a nekk ci àdduna bi. bi yàlla dogalee dama daan damay damay def listixaar damay def damay def ramlu. Mhm. waaye seet bi bi ma ko gëstoo ba tey. Mhm. ñi ma xam xam sëñ Abdou Mbacke. képp ku mhm. ma xam mos naa laa seetal. booy seetluwaat danga naa ma seetal ma ci loxo ndeyjoor bi. ndax bari waa dañoo xam ne dañ daan seetlu dem ba jàpp ne seet amul nga xam ne dañ daan dem seetlu fu ne jàpp dem nañ ba jàpp ne seet amul waaye bi yàlla dogalee tey jii ma xam seet bii képp koo xamante ne si nii yàlla dogal na dem nga fu ne ba jàpp ne seet amul boo ñëwee lépp loo xam ne si nii umpoon na la ci sa biir ak sa bitti naa la ko wax. ak foo mën a nekk ci àdduna bi mën a bu fekkee ne maanaam sarax moo la tëj wala rawxaan moo la tëj wala lu mu mën a doon ci kàttanu yàlla bu ñu ko seetee danañ la ko wax d'accord ma ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu ndomba gi ndomba gi nag euh, ñëwoon naa fi bi fi ñëwaatee euh, xale jigéen yi bari di ko laaj mu raar lool muy ndomba bayre mhm. boo xam ne daanaka intéressé na ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñi ndomba gii. Mhm. ndomba bayra jigéen la. Mhm. bayra jigéen nag buñ ko boo déggee ñu koy wax mooy. Mhm. góor gi nga xamante ni dafa ñàkk bayra. nga xam ne tey maanaam pour mu am soxna sax da koy të. kii mooy ndomba juróom-ñaari gaw bi nga xam ne bayra jigéen dongoo ko tax a jóg. bu ma kenn laaj nag naan ma am na kaaraange wala amul kaaraange daray kaaraange newu ci bayra jigéen dongoo ko tax ki nga xam ne si nii daal dafa yittewoo fa mu nekk maanaam tey jii jigéen ñi soppuñu ko wala bëgguñu ko kooku bu ko takkee bu ko gawee juróom-ñaari gaw jigéen dana ñëw jooy sa kanam wax la mbëggeelu boppam lii man maa la ko wax. mais est bii ñëpp ko war a takk. ah ñëpp ko war a takk kay ci ñi nga xam ne dañu xam nga am na ñoo xam ne yàlla dimbalal na leen tey ba ñàkkuñu bayrab jigéen. Mhm. waaye ki nga xam ki ko tax a jug dëgg mooy ki nga xam ne si nii amul bayrab jigéen xam nga jigéen li tax maanaam mu sopp la baax mooy bu la soppee góor ñu sopp la. Mhm. jigéen dafa am solo. Mhm. bu fekkee ne am nga ko da nga gis jigéen joo xam ne si nii ku am maanaa la ku am situation yoo koo xam ne si nii tey jii mënal na boppam ñëw bëggal la boppam. te loolu lu am solo la. Mhm. moo tax bayre bii képp koo xam si ni yàlla dogal na ba nga am ko insha allahu taala maanaam da nga sant yàlla bu baax. ci foofu xale jigéen ñu ngi may message ci xale jigéen ñu moom la liggéey ci lii ndomba gi ñu wane nii. Mhm. maanaam secret moo nekk nii. d'accord moom la ñuy liggéey ci lii bu ko liggéeyee ba noppi nag comme sëriñ si nga xam ne si ni maanaam loo gis mën nañ koo copier. waaw ko bu liggéey lii ba noppi day am leneen lu ñu koy booleel. moom lañ koy booleel moom mooy mooy doon ndomba juróom-ñaari gaw bii ngay seen nga xam ne ci bayra jigéen dong lay dox d'accord ma xamal la ci ne maanaam ci wàllum sëñ Abdou Mbàkke ci wàllum euh, ki nga xam ne si nii tey dafa bëgg soxna mu ta ko mhm. nga xam ne si nii tey ji am na nekk relation boo xam ne si nii jigéen nga war na ko wala dara mhm. kooku euh, dama ci def noob lu doy waar noob waaw ki nga xamante ni yàlla dogal tey sama alliwey weñ ji xam naa xam na maa sori bu ma bu ma ko mënoon a jot ma ma ma ma ma wan ma wan leen ko. dama jox ko ko alliwey xànjar ji. Mm-hmm. ci lay liggéey ci wàllum boole. Mm-hmm. képp koo xamante ni yàlla dogal na. Mm-hmm. tey jii maanaam nga am koo xamante ni yaa ngi koy bëgg bëgg koo denc soxna. moo xam mu bañ. moo xam mu gàttal la moo xam tey jii mu doon sa soxna déggalu la wala mu doon famille boo xam ne yàlla dafa dogal a mm-hmm. ma defee li may def ci alliway xànjar ji wirdu ma a boole da nga da nga da nga boole ka ma lay maanaam déggoowuñ bu ñu ma joxee seen i tur ña nga xam ne jubóowuñ bu ma ko defee fii bu liggéeyee la may liggéey danañ doon benn insha allahu taala mhm. mu mel ni xale jigéen yaa ngi message nag ni ma sëñ Abdou moom daa far góor ñi rek bàyyi jigéen ñi xale jigéen yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe sëy waa jigéen ñi am na ci loo xam si nii maanaam ñoom laa koy liggéeyal mhm. waaye ñi ma ëpp ñi ma koy liggéeyal nag mooy ñi am borom kër ñi nga xam si nii tey bëgguñ saafara boobu day dox ci góor góor gi nga xam ne si nii tey dafa takk soxnaam. jàpp ne mën naa mooy yàlla wala dara ndax ab tool dañ koy ñag ab tool dañ koy ñag boo takkee sa soxna nga bañ ñu wuutu la ci am na saafara yu mag ñi daan defar yoo xam ne boo ko defaree sa soxna bu la neexoon mën ngaa dem États-Unis fukki at wala ñaar fukki at kenn du la wuutu sa soxna. boo àggee sa xel na dal waaye tey jii dangay dem tukki ñu wuutu la sa soxna. Mm-hmm. léegi nag loolu pexe am na loo xam ne si nii képp koo xam ne si nii yàlla dogal na jëflante nañu ci ak yow. Mm-hmm. foo mën a nekk sa xel na dal te xam ne sa soxna kenn mënu la cay wóor. bu fekkee ne jigéen tamit bu ma la defalee la ma lay defal sa borom kër maanaam nanga xam ne sa borom kër lu mu sori sori boo ko utilisé na ma la ko waxee sa borom kër lu mu sori sori na sa xel dal te xam ne du la mën a mooy mukk. d'accord waaw loolu dañ koy liggéey d'accord ci foofu noonu laay ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu impuissance sexuelle mm-hmm. ñu gis daan euh, yi sëy sëy yëngu na mm-hmm. te wax dëgg yàlla nga taxaw taxawaayu Serigne Saliou mooy di teete xale yi te boo ñëwee sa daara mm-hmm. bari na xale yu fa nekk yoo xam ne dañ leen a jël jébbal leen ko ñu ay doom ngir li nga xam ne yaa ngi leen ko jàppale seen wàllu néegu sëy waa na nit ñu baree bari ñoo xam ne si nii yàlla dafay dogal ñu lay woo téléphone ne la man de sëñ Abdou damaa dem ci Serigne si ba tas wax dëgg yàlla maanaam damaa fajoo fajoo fajoo faju ba jàpp ne sax néew kàttan kenn mënatu koo faj hmm. waaye li ma lay wax mooy man xaraxal baaba wala ja walaj la Sëñ Tuubaa wax ci jawhar ci ci ci ci ci nax ju xadaa il xaaji hmm. boo demee ci nax ju xadaa il xaaji Sëñ Tuubaa ma ngi fay wax man xaraxal baaba wala ja walaj hmm. mooy mbir boo ci yàggee di ca dox di ca dox di ca dox bu yàggee da nga da nga da ci gis la nga ci bëgg a gis mooy buntu boo ci yàggee di fëgg di fëgg bu yàggee dana la ubbil mhm. kon nit doomu aadama warut a découragé wu mhm. boo feebaree boo demee ci sëñ diw fajuwoo demal ci sëñ diw boo demee mhm. ci sëñ diw booy dox noonu bu yàggee da nga dajee kala suñ borom booleel yàlla dafa dogal néew kàttan ci néegu sëy dama xam ne si nii nañ ba jàpp moom jigéen pare nañ ci xam naa ci dara te man dama lay faj ba nga mën a ay nit ñoo xam ne nit ñëw na fii jooy na ma sëñ Abdou sama sëy yi parce que sama ñaari soxna taxaw nañ pour ñaan ma baat ma ne ko comme yàlla indi na la fii na la leer ne maanaam tey jii sax say say ronkañ naa fer. te foofu noonu te foofu noonu dama ci dolli ni yow sa faj nekkul ci 24 heures durant durant sa ngir dund lay doon. man sama faj nekkul ci parce que li ma lay jox man baatin laa lay jox. du la hmm. jox ay sungu faki reen. man hmm. baatin laa lay jox. ay hmm. turu yàlla yoo xam yaa xaw yu am na ci liggéey bu ñu koy liggéey am talsam yu ñu koy booleel yoo xam ne si nii bu ko liggéeyee dañ koy liggéey bu ko joxee. boo ko sa dund te da ngay wér maanaam am néew kattan xam ne xam nga néew kattan feebar bu mu mën a doon boo ñëwee dama koy seet dëgg la néew kàttan ñi may faj amul kenn ku may faj ci néew kàttan nga ñëw rek ma jox la garab dama lay xool parce que li tax néew li koy def dafa bari am na ñoo xam ne rawxaan moo leen koy def loo hmm. am na ñoo xam ne rawxaan bi da leen di fooyaloo seen kanam ngir ñu am bànneex am na ñoo xam si nii dañ koy def di jooy ne bu ëllëgee du ma ko def waaye bu ëllëgee ca waxtu ñu defaat ko la waral loola nag rawxaan balay def loo loolu mooy téye sa sàkkara ba tey sa sàkkara day yolom ba nga xam boo doon sëy ak jigéen une minute nga daanu wala deux minutes nga daanu. te boo noppee dootoo am njariñ am na ñoo xam ne maa lay xamal ne la bu ñu sëyoon tey mën nañoo toogaat semaine boo xam ne duñ mën a sëy. a mm-hmm. da nga ko a sëy moo xam ki nga xam ne da doon foowee kanamam ba ba ba sàkkaraam mu dem ba jàpp ne yoom na wala mu dem ba yàq man lenn rek laa mën ta faj mooy nit ki nga xam ne si nii dafa judduwaale yoom mhm. waaye bu fekkee ne yàlla dafa dogal ne sa sàkkaraam mi ngi jóg tuuti wa ilaa maanaam jugatul sax waaye dalaa dab bu ñëwee ci kattanu yàlla insha allahu taala danaa la ko saafaral ba nga mën a sëy 40 minutes wala lu ko ndax faj naa ci ay nit ñoo xam ne ñii am nañ 60 ans ñii am nañ 70 ans ñii am nañ 80 ans ñii am nañ 30 ans ñii am nañ 20 ans ku nekk bu ma la wonoon fii sama liste yi kenn ku ci ne ci âge faj naa la ci dëgg la waaw ay faj yu fasantikoo yoo xam ne si nii képp koo xam ne si nii yàlla dogal na jëflan ci insha allahu taala sa xol dana sedd bu soobee la ki nga xam ne si ngay jigéen di sëy lu yàgg mënoo am doom boo ñëwee biteel bi ma lay jox nga koy naan yàgg sa boroom kër doo ko naan lu mat trois mois te jàppoo ëmb incha allahu taala fekkee sa sa borom kër yaa ngi ak moom yéen a ngi nekk incha allahu taala doo ko naan 3 mois te te te jëloo ëmb loolu mm. moom ñaanal nañ ci ay nit ñi nga xam ne tey yàlla dogal na ñi ngi ci barab di sëy yàlla dogal na yàgg nañu fa te mënuñoo am doom insha allahu taxala bu yàlla dogalee bu ñu yàlla boolee insha allahu taxala loolu dana saafaraw ki nga xam ne si nii yàlla dafa dogal sa boróom kër wan la ginnaaw te xamoo lum doon ci kàttanu yàlla bu ñu ko xoolee ba xam lum doon bu ñu la ci ñaanee insha allahu taxala mm-hmm. bu fekkee ne nit ki nga xam ne yàlla dafa dogal mu nekk bitim réew wala mu nekk ci biir réew mi bëgg ay këyitam jafe ko insha allahu taxala bu ñëwee ci man dañ koy xool bu ñu ko xoolee bu fekkee ne sarax boo war a génne la bu ñu la ko waxee boo ko defee ca weer wa nga ko def say kayit danga ko danga ko danga jot bu fekkee ne tamit loo xam ne si ni dañ ko war a fatu xalwatu insha allahu taala bu ñu la ko fatul xalwatu ca weer wañ ko defee da ko jot insha allahu taala mm-hmm. waaw mm-hmm. képp koo xam ne di daal am nga ay jafe-jafe moo xam ci wàllum sëy la moo xam ci wàllum néew kàttan ci néegub sëy la moo xam nit ki nga xam ne si ni da ngaa nekk ci barab te kenn safawu la fa nga xam ne da nga faa nekk daanaka mel ni daanaka yàkku fa nekkul yéen a yem insha mm-hmm. allahu taala boo ñëwee fii danañ samp foofa ba nga xamee si ni mm-hmm. maanaam da gis sa bopp bu baax ca fa ngay liggéeyee ma ñëw ci li nga xam ne moo di wàllu papier yi nga ciy liggéey liggéey boo xam ne bokkul ak parce que bu ñu nee papier ñu bari yaakaar nañ mooy ki nga xam ne dafa tukki am am taw a ñëw donte loolu ci la bokk mm-hmm. mais képp koo xam ne day xëccoo ay këyit wala ngay déposé yaa ci mën waaw xam jooram yónnee ma ko bu yàlla dogalee mu foto loxo nday yónnee ma ko insha allahu taala bépp gàllankoor boo xam ne si nii moo gàllankoor kayit yi danaa ko ko wax am naa benn taalibe boo xam ne si nii Suède la nekkoon am na fa fukki at yoo xam ne si nii maanaam wàllum kayit moo ko téye woon a liggéey moo ko téye woon def lu baree bari bi yàlla dogalee mu ne ma euh, am naa fi fukki at yoo xam ne si nii awuma liggéey te mënumaa def benn activité te saa su ma déposé maanaam du génn ma ne ko sarax bi mu ma wan ma génneloo ko ko mu génne ko 5000 francs ci lay toll wala mëtul mëtul 10 000 francs mhm. te bi mu ko génnee ci la am liggéey boo xam ne si nee na ma sëñ Abdou fii ñu ma embauché nii bari na tubaab yu nekk fii ci réew bi bëgg fee liggéey mënuñu fay liggéey ne ma jàppoon naa ne fii mën na maa dund ba fàtte du ma fi liggéey loolu nag la koy waral mooy baatin nit ñi nañuy ñaan lu te xam ne ad duhaahu silaaxul mu'min mhm. ñaan mooy ngànnaay lu jullit nit bul bàyyi ne nangam du ma ñaan lu wax ndax sëriñ si nangam nangam déedéet ñi doon am xam-xam ngi am ba tey mhm. bu fekkee nag yàlla dafa dogal ne jàpp nañ ne maanaam képp koo xam ne si nii yaa ngi leeral xam-xam wala dara nangam nangam mhm. loolu nax sa bopp la nit da ngay gëm ne yàlla mooy maye xam-xam am na mhm. te am na ñu ko am man dey ba may nekk xel kom ca daara ji di jàng la ay nit daan jóge fii ndakaaru di dawal seeni oto di ma fekk ca daara ji may faj seeni aajo kon nag tey jii laa ko gën a jekku tey waxuma la booba booba maa nga ca daara ja di di kii mhm. tey jii laa ko gën a jekku mhm. waaw kon ñi ngi ciy sant yàlla bu baax mhm. ma lay xamal ne nag fi ne waxtu wi yaa ngi dégg sama téléphone bi ni muy sonné te waxtu wi tënk tënk nañu tey nit ñaa ngi toog di xaar kon nag ñu ñu tàggatu foofu rek di wax ne ñi ngi sant bu baax di gërëm bu baax li ñu bëgg a leeral daal mooy képp koo xam ne am nga ay yitte yu la të mm. yoo xam ne si nii dem na ba jafe la ba të la mm. nga wër fu ne ba mënu jàpp ne maanaam mënu aaju ji mën ta faju mm-hmm. ñëwal nga seet sëñ Abdou Mbacke maa ngi xam nag maa ngi leen di wax benn affaire man sëñ Abdou nga xam ne sëriñ Saliou moo ma yar ci du jël sama numéro di ma woo mm-hmm. képp ku aajoom na a faju rek moo may woo waaye ku aajoom nër ta faju doo ma woo dëgg la waaw di sant bu baax di gërëm bu baax di wax euh, bépp képp koo xam ne si nii yaa ngi doon seetaan sëñ Abdou rek sëñ Abdou ngi lay ñaanal jàmm ju ànd ak xéewal gu sax dakk mhm. di wax wa aaxiru daxwaana alhamdulilahi rabbil alamin barkeb Serigne Touba jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu ah sëñ Abdou ah, sëñ Abdou Mbacke moom Serigne Saliou moom lañ loon fii fajkatu aajo bi dañuy wax ni ki ko mën bokk ak ki koy jéem ah ñun nag ñoo dox ba ñëw fii xat na torop nit ñaa ngi toog téléphone baa ngi sone kon dañ ko yemale fii lu duuf ci nag bi xajut ci sin mi di leen jox yeneen dig daje ci sunu yeneen émission ngeen jëf